bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala ayni rahmati rabbaniyati wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari alazim mbokki asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñi ngi jëm ci bis bu màgg bis bu bëri mbóot boole baat yi nga xam ne yiw yëpp ci lay génnee mooy dikru ak sukru ak zikra mboot yëpp a ngi ci tudd yàlla yokk lépp mi ngi ci sant ko waaye njëriñ yëpp mi ngi ci fàttalil jaam yi laylatu dikri wa sukri wa dikra yaakaar naa ne bis bu kenn du laajte la ñun ñëpp xam nañ ko fii ci Medina Seydi Ousmane di ko taxawee di waxambaane woo xam ne lu baax rek ki lay yëngatu tudd yàlla jàngal alxuraan yere xeeñtu ñu baax ñi waaye laa xarwa ndax ku xam-xam ñi ko meññ da xam ne su deful li dana jaaxal ñi ko xam kon Seydi Ousmane Niass muy bis bu màgg mu koy def fii ci Medina Baye comme ni nga ko xamoon le 18 àllarba incha allah mu doon nekk waxtu wu nekk ci taxawaayu doom ju baax sëriñ bu baax xarit bu baax di royteef bu mag Cheikh Abdul Malik Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu moo ko doon taxawee at mu nekk di fa jàngale lu yaatu tudd ko ci yàlla di fa tudd yàlla façon tuddin bu nekk muy bis bu taaru bis boo xam ne bokk na ci taari Medina yi kon ñu ngi koy yëgal soppe yëpp ren nag daf ko njukkale ay mag yu bëri bokk na ci Seydi Mawlaay Si Xasan Dem nga xam ne kenn la ci kanam xadara bi bàyye bàyyeekoon Fuuta ñëw fii ci sëriñ bi Cheikh Ibrahim ànd ak moom jëriñu jëriñe Seydi Ousmane Niass bokk na ci ñim ko cirale mooy góor gu mag googu kon nag kenn amul ngant ci taalibe yi pour fekke si ko rawatina nag ñi nga xam ne seen wasila mooy si Xasan Dem ndax teraanga ju rëy la leen sëñ Ousmane jox amuñ luñ ko fayee nag lu du teewal ko ci bésam bi bokk ci ña koy taaral bokk ci ña ko ciy ñaanal ña ko ciy wéttale kon ñu ngi oo ñëpp ci bés boobu la 18 la àllarba incha allah barab ba kenn du ko laajte foofu rek la ki ko taxawee si Abdou Malick la yaakaar naa ñëpp xam nañ ko ñu ngi ñaan yàlla ñu fekkee biss booba ci kaw dégg nga de wér ak tal yàlla may ci mëdët bu jéggi dayoo gërëm ko bi jay Mawlana rasulillah wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.